huit ans et demi bi liggéey bi pare ndax moom ci boppam moom am pouvoir constitutionnel décider kan mooy ànd ak moom ci gouvernement ànd nañoo moom depuis le premier gouvernement 4 avril jusqu'au 1 novembre 2020 on est ensemble te jàpp naa it on restera ensemble parce que je suis pas dans le gouvernement mais je suis dans le parti li ñu dugaloon ci parti bi mooy ànd moom liggéey te mi ngi ci liggéey bi donc nañu ànd moom ci liggéey c'est vrai que émotion yi yëpp mën nga ko comprendre waaye néegi ni daal li am solo mooy yàlla def na en plus du gouvernement man dañ maa faloon mairie Linguère kon bi ma ci lii ma ne occasion la ma gën a mën a ñëw toog fii liggéey ci sama mairie donc jarul coow lu bari la ma nekkoon ci tànki jolof tey laa ci gën a nekk la ma nekkoon ci tànku senegal tey laa ci gën a nekk sant yàlla nag ba bi génn du génnuñ di sëgg mm-hmm. loolu rek li am solo vraiment du ay na ngeen tàppe xol yi affaire du ay xeex du ay xuloo liggéey la nañu liggéey daa nañu liggéey ba ñu déggul tur ministre bu leen fàtte ne bi nekk ministre booba am nañ lu mat ñeent fukki at ak juróom-ñett di dégg turu ministre daa nañ liggéey te booba déggun turu ministre booba daawuñ sax politique di jàppale Jolof dugg ci politique bi di jàppale Jolof ñoo ngi ci politique bi génnuñu ci danañ gën a jàppale yoon buñ ci génnul sax danañ gën a jàppale wax ma la buñ ci génn kon nañ dem continuer suñu liggéey loolu rek mooy li am solo fi kenn mere président Macky Sall xam naa ne peut-être li mu def am na ñu am na ñu neexul c'est normal décision moom boo ko jëlee bu ne am ñu neex ak xam ne tey peut-être na leen xam ne peut-être neexul leen waaye li rek mooy li nit ñi di apprécier ci li ñu liggéey loolu moo ëpp solo appréciation bi nit ñi def ci suñu liggéey appréciation bi président Macky Sall def bi ñu àndee ba liggéey loolu mooy lan yeneen yëpp jarul vraiment dal leen vraiment dal leen fi pour def conférence de presse ñëw ma fi pour def point de presse ñëw ma fi pour def meeting c'est vrai mun leen ñàkk ñëw mu recevoir la mm. waaye ñëw ma fi pour def loolu lépp man dama ñëw rek pour noppalu si parce que quand même bu may liggéey fii gëm naa ne charge ministre de l'intérieur moom fu wàcc sa bopp fu ne rek dèjà da ngay donc damaa ñëw pour noppalu si noppalu boo xam ne bii defuma ko depuis juróom-ñetti at ak genn wàll ñëw fi pour leneen amul benn explication bu ñu jox kenn lu mooy ñoo ngi ci woon nekkuñu ci waaye liggéey ba nekkoon moom ñoo ngi ci jërë ngeen jëf